mais ministre de la jeunesse. gën nañu trente xar. trente xar yi trente xar yi dayul mu yokk dis tey. Amar réew mi bëgg nañ si yow nag bàkk yi ci yàlla ma xam yaa ngi jàppale doomu aadama yi de président ministre de la jeunesse. ministre de la jeunesse mi ngi nii di yokkal xar yi. may nañ trente xar trente xar jeex na tàkk munoo dayul mboolee mu ñëw daral ba ku ne di wàcc ku ne di ñaan maire yi jooy paay du jooy bak si mbaam ndax réew mu métti ñàkkuñ jom ñàkkuñu fayda réew mi métti rek président génnee lu nekk si bankam bàyyi ko muy nolaw foofu de génnee lu nekk ci bankam di ko dimbale doomu aadama yi bak si Saliou Mbacké amar yàlla na yàlla defal jàmm ministre de la jeunesse bi lay woowee dangay dëgg président ngay dem bàkki Serigne Saliou Mbacké jënd trente xar xar ya jeex mu yokk diis bàkki Serigne Saliou Mbacke pël yaa ngay sant pël yaa ngi sant président foo jëm ak gaay ministre de la jeunesse foo jëm ma nga yóbbu xar ya bàkki alxuraan kenn doole la koy jox bàkki alxuraan kenn yow si réew mi ma jënd xar a pare wàcc le terrain moom moom li moom mosuma gis moom bàkki Serigne Saliou Mbacke yaa ngay dugg de bàkki alxuraan kenn ministre de la jeunesse yàlla na yàlla yàlla na yàlla fay sa xol bàkki Serigne Saliou Mbacke jënd 30 xar lépp tey nga ñëw yokkaat yéen diis lii nag moom ab njàmbaar rek ko mën bàkk yéen xuraan karim taalib Cheikh Béthio bii yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla fay xolam sax na xol bu sedd bàkk yéen ti yàlla moo xam ne bi tàmbali na ñu sax ma nga ñëw jeex na mu jaar fukki xaram newaat na day dolli ndax jeunesse bee ko ñor àdduna xam nga ni lii nekk si banque bi di tëdd di nelaw ay milliards moom mu génne ko da ko def social gàcce ngaalaama rek moo la war. amul leneen lu gàcce ngaalaama rek moo la war Omar bàkki Serigne Saliou Mbacke àdduna bëgg nañ ci yaw de àdduna bëgg nañ ci yow bàkki alxuraani karim man da sagu sagal nga ma.